ñaareelu xaaj bi ci ñeenti xaaj yi téere njalben gi di téere bi jëkk ci tawretu yonent yàlla musa wax na ni yàlla sàkke asamaan ak suuf ca njalben ga yàlla sàkk na asamaan ak suuf suuf si amul woon melo amul woon dara ndox rekk amoon suuf si dafa lëndëmoon xelum yàlla yiir ndox mi yàlla ne na leer gi am leer gi daldi am yàlla xajale lëndëm gi ak leer gi yàlla tuddee leer gi bëccëg lëndëm gi guddi noonu yàlla sàkk suuf si ak géej yi sàkk jant bi weer wi ak biddéew yi gàncax yi ak mala yi ak lépp li am mbind mu sell mi nee na yàlla sàkk na lépp ci kàttanu kàddoom rekk léegi ma laaj leen juróom ñaar ndax am na lenn lu ngeen di gis lu amul ndorte déedéet yàlla rekk moo amul ndorte yàlla dafa mës a nekk te dafay nekk ba faw juróom ñett naka la àddina si meloon laata yàlla di waajal nit ñi ngir ñu dëkk ci àddina si amul woon melo te dafa lëndëmoon waaye xelum yàlla mu ngi yiiroon àddina si juróom ñeent naka la yàlla sàkke àddina ci dooley kàddoom rekk la sàkke àddina